jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo talaata bi jot ci waxtu wi tey di talaata fukki fan ci weeru avril 2012 euh, euh, muy weekend boo xam ne dafa tombeek Pâques yi di ñaanal sunu mbokk chrétien yi déwéniti di leen wax déwéniti di leen ñaanal comme niñ ko yàggee def ànd ak ñoom kon mbokku téléspectateurs yi yéen ngi seen magasin. Rofo magazine Rofo bi euh, tey nag dañu fas yéene ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy programme mu làmb ndax làmb ji ku ne xam na ne euh, quarante deuxième journée quarante troisième journée ba quarante quatrième journée bi euh, amal nañ ko ci làmb ji ci diggante Euh, euh, àllarba la commencé woon jàpp samedi jàpp dimanche euh, ci programme yi làmb kon asalaamaaleykum ko ci ne ñu ngi lay nuyu fi ñu leen daan nuyoo ngeen toog à travers le monde jàkkaarloog ñun ci seen magazine Roffo fas yéene ñëw nag ci li nga xam ne mooy programme yi nga xam ne moo ne sunu kanam mbokk téléspectateurs yi comme ni ñu leen ko daan defalee bii yoon nag dafa am loo xam ne ay jàngat ay perspective ci combat yi ndax ne woon na leen bu àllarba tasee coow dina bari bu samedi tasee coow dina bëri bu dimanche tasee ba altine coow dina bëri ci làmb ji loolu yëpp ñu fas yéene ko faram-fàccee ak li nga xam ne am na ci programme mu jàkkaarloo amoon ci diggante mbër yi euh, kon mbokku téléspectateurs yi dañuy dem ba euh, géejawaay géejawaay Mbour production euh, amaloon foofu combat yu am solo yoo xam ne ci diggante Boy Sey numéro 2 ak Ndandi Fall la woon Boy Sey numéro 2 nekk Pikine Mbolo ak Ndandi Fall bu Grand Yoff Mbolo dañu match nul Jordan Junior. ak Boy Tall Jordan Junior moo daan fa moo fa daan Boy Tall la Dor daan fa Demba Thiaw Cambo euh, bu Kara daan fa Boy euh, Dox euh, Sagard daan fa Medina Boy Faye daan fa Ndu Bun kooku Mbor production moo ko amaloon ci stade Guédiawaye bi nga xam ne mooy Amadou Bari moom it di ko félicité combat bu mag bi nag dañu nul ci li nga xam ne mooy samedi ba léegi ci Arena Tour bi ak sunu mbokk waa RDV foofu nag. Euh, dafa am championnat poule abi bi États-Unis euh, moo ci bëre euh, daan fa ki nga xam ne muy kii la kii la fa daan ba États-Unis moo fa daan Batista Batista la daan un lion ci poule A bi moom it daan Modou Dia kon ci classement bi ci poule A moom la ñu di jox premier ex aequo la États-Unis ak lion d'or ñoo ne ci kanam kon troisième place bi ñi ko toogee mooy Batista ak mod Dia ah ci poule bi tamit bëri nañ ko góor fit E, moo fa daan Youssou Ndour e, Youssou Ndour yi nag ñaari Youssou Ndour la Youssou Ndour bi nekk lébu gi ak bi nga xam ne moo nekk école de lutte balagay Gaye e, ki nga xam ne nag mooy Kama Junior Youssou bu lébu gi nag moom la góor fit daan ci poule bi Kama Junior daan fa Yékini numéro 2 ci classement bi ci poule bi tamit dañ leen ko jox ki ci ji ñi ci jiitu mooy góor fit ex aequo ak Kama Junior ci troisième place yi ex aequo la ba léegi diggante Youssou Ndour bu lébu gi ak Yékini numéro 2 Euh, kon looloo amoon diggante samedi Iba Mar Diop ak fi nga xam ne euh, mooy géejawaay euh, mbokku téléspectateur yi. dellu siwaat nag ci le 4 avril le 4 avril di bés boo xam ne ci làmb vraiment dafa am yu bari yu ci daje woon yu ci daje woon muy ñaari xale yoo xam ne diggante Tonnerre ak Sa Thiès Tonnerre ak Sa Thiès combat la boo xam ne bari woon na coow bari na coow ndax fii la Balla Gaye ne woon Gaston Sa jox ko Tonnerre. xëy na lii la ci gisoon waaye tamit Sa Thiès day xale boo xam ne ah gars yi d'accord nañu ne mi ngi ci yoonu yoonu lamb mi ngi ci yoonu dëgmal lamb mi ngi ci yoonu dugg cour des grands parce que prouver ko mënta weesu dajeeg nekkuré la daan ko dajeeg ki nga xam ne euh, mooy Zarko daan ko euh, kon boo ñëwee tey ñu jox la nga daan ko kon Sa Thiès liñ ko doon bàkkee ñu ngi koy gis si moom te it bu leen fàtte ne Boy Sey mi ngi ci col euh, mi ngi ci palmarèsu Sa Thiès moom nag ak tonnerre mi nga xam ne ku ne xam ne ne moo yor drapeau bersi daanoon Yékini Junior jóge fo ba rek Papa Sow Papa daan ko euh, toog ay six mois compétirul nag bi mu dellu see mu jël Sa Thiès Sa Thiès daan ko mbokku téléspectateurs yi dañuy dem bay Stade Demba Diop ak Gaston Production seetaan yi Sa ak tonnerre ngi ni teg Bébé Modou Lo nga koy doxloo nu mu ko neex nu mu natt rek mu xaj ko boppam Bébé Modou Lo daw na jël na ko tëj na ko fa mépp ku fay na song ko ci bu tànk yi tëj ko newoon naa leen tey dalul sama junior seen càmmoñ arbitre baa ngi leen di laaj li làmb nangu ak li làmb bañ ndeysaan au chaud du ndeysaan mooy ndox mu tàng yàlla buñ ko këpp Abdou Aziz Mbaye ak Moustapha Gueye <laughs> Youssou Ndour kenn du la këpp ndox mu sedd ñoom ñaar ñi nga xeex au chaud du ak Aliou Seye junior nañu tànk au tey mu ndox mi sedd tey ndox mi sedd takk nañ ko yenu nañ ko laay laay la laa samp nañu bopp bi ndox mi daa sedd ndox mi daa sedd laay laay taf na tey ci gémmiñ ga ndox mu sedd guy la Alioune Sèye Junior yenu na yenu na au sol ba biir weex mu teg ci suuf mu jox asamaan asamaan ne bëgguma mu jox ouest ouest ne bëgguma mu jox nord nord ne bëgguma mu jox sud sud ne bëgguma mu jox bëj gànnaar bëj gànnaar ne bëgguma mu samp ko dem ba Fafane du ndeysaan mooy jàkkaarloog Djily songoo nañu ndeysaan faama nee naa a yem na la jël na baax na rëpp nañu baax na daan nañ Safane du du lu wax ci làmb jóg faye ko bor melul lu ma la wax ci ko bar jëli daan saafandu jëli daan saafandu jëli bu rëy laay laay la laa daan saafandu e eh, jëli e jëli

jël na ko Pape Cargo Pape Cargo songo nañu Pape Cargo ak Maurice songo nañu Maurice a ngay door Maurice a ngay door ñoom ñaar songo nañu Pape Cargo ak Maurice ndeysaan ndeysaan gomis sama xarit baa ngi ndeysaan mag yow ànd nañu fu ne ndeysaan gomis ña ngay rakkas Pape Cargo de laay laay lala yenu na ko añ na ko bañ na Maurice daan nañ ko Pape Cargo daan na Maurice Pape Cargo bu sa bu tay singa dan na Maurice looy looy la doole am nañu problème lamb ji am ngeen problème Pape Cargo ñëw na daf lay Cargo rek yóbbu looy looy la la ndeysaan ndeysaan seen ci kaw tribune bi ma carte ma caution la Jordan taj na taj na nen yàq na cuuj ak omelette Jordan ak si ñoom ñaar ñi nga lewato Super Étoile seen ndeyjoor Jordan seen càmmoñ Super Étoile ak ko gar une kenn du di door ma xam kañ ngay door fan ngay door ak naka la doore Jordan teel Jordan teel Jordan teel la door nga daanu Jordan Super Étoile maa ko wax maa la ko wax maa ko wax takk na ko Jordan Jordan daa wéeru daa wóolu dooleem kenn du def ni Super Étoile xale bi xale be remplacé na ko jël na tànk bi remplacé na ko dëj na ko dëj na ko dëj na ko dëj na ko am na lu xew de am na lu xew de am na lu xew de ku waaw waaw Super Étoile dal na Jordan Super Étoile dal na Jordan Super Étoile dal na Jordan wax naa la Jordan kii kenn du ko waaxu xool dëj na la bu yàgg dëj na la bu yàgg maa la wax loolu lay la la laa lay la la laa mu daanee Jordan Jordan la ngay julli mais eh, Jordan kenn du julli ak yaramu neen Jordan kenn ngay sol yére Jordan la ngay jàpp Jordan doo tiim Jordan dox am na fi waaw waaw waaw waaw arbitre bi soufflé sànni na gàllaaj toj na nen nenu Sa Thiès ba tojul ma ne ma ne ma ne ma nenu Sa ba tojul waaye tonnerre bi nen wi mu sànni ñaari cuuj génn na ci menul tonnerre nen wi mu sànni ñaari cuuj génn na ci ma ne tonnerre nen wu mu sànni ñaari cuuj génn nañ ci